bisimila dal leen nag jàmm mbokk internet yi Moustapha Cissé Lo yokku na cere dolli ñeex te bile yoon baaraamam ba ma ko joxoñ njëmale ko ca Macky Sall ngi ko naan bu fekkee ne Macky Sall daf maa bëgg suul na ko leer na moom ci jëmmi boppam moom mooy suulu journal bi di Walf Quotidien del si wat na ci mbirum Moustapha Cissé Lo bile yoon indi ci ay faram-fàcce yu leer ci talaata ji jëm ci beneen audio boo xamante ne kii la di Moustapha Lo moom moo ko def député APR ba woon nekkoon itam président parlement CEDEAO di Moustapha Cissé Lo bi la yoon dafa ñëwaat waaye itam di daal di lim ay tur yu leer ak ay limu xaalis yu takku yu muy leeral indi ci ay firndeel wax ne jox nañ ko ay nit ci nguur gi ak anam bu amul benn werante waaw nguur gi Cissé Lo ca xadar ga nee na j'ai la plus grande capacité de nuisance du Sénégal waaw maanaam réew mi maa fi ëpp dangar déedéet du ay foo El Pistolero dafay matt di xosi di gajji xeex rek lay def Moustapha Cissé Lo ne sama diggante ak Macky Sall mel ni diggante Demba War ak Dior combat bi nar naa métti de lamb ju dox ci diggante Moustapha Cissé ak ki nga xamante ne mooy Macky Sall jël ba dana rëy Moustapha Cissé Lo nee na mane bu fekkee ne Macky Sall daf ma bëgg suul na ko leer ne moom mooy suulu lii la artoo njiital réew mi di Macky Sall ci boobule audio ba tey Moustapha Cissé Lo ma ngay wax joxoñ ay baaraamu tuuma ci luubalu xaalis réfection building administratif ak financement yu ANPEJ ak DER lu doy waar lam ca wax feeñal ko nag moo nar yëngal dëkk bi ci boobule waxtu ci guddaay waa Walf Quotidien déglu ko góor gi Cissé Lo ma nga cay lim sàcc yàq luubal ya ak ñu bari ñi nga xamante ne ni takku nañ ca mbir ma takk nañ ca mbir ma rëpp moo ne de ñoom ñëpp ay kilifa lañ yor ay ndombal tànk ci nguurub Sénégal gi du man Moustapha Cissé Lo moo ko wax ma ngi cay def ay révélation yu doy waar su leen ay mboota ci anam gi nga xamante ne moom lañu yoree Sonacos ay luubal yu am ci marché filé yu footballeur ya waaw waa génération 2002 présidentielle yi ñu génn li Moustapha Cissé Lo wax yépp xaju fi ndax boobule audio daal ki fi ne woon président parlement bu CEDEAO wax na ca lu ne gis nga nag médiateurs yi dañuy gaaw jubale ñaar ñi ndax dëgg la Macky Sall borom doole la o fañing fañ fañ fañ ca wàccaacaa waaye nag bu ñu fàttani el pustelero fetel la yore ratatatatuy ji bés bu jollee kenn du ci am jàmm Cissé Lo nag moom jàpp naa ne jot na procureur de la république jubli ci saytu mboot yi nga xamante ne jot na ko ci mbir mi dañ ci i leeral jërë